et financé par la coopération allemande GIZ ah projet bi nag dañuy jël ñi nga xamante ni ñoom ñoo jógee bitim réew ñëw fii nii seen dëkk fas yéene fi installé pour liggéey mais defuñu ko bàyyiwuñ leen benn yoon pour ñu toog seen côté mais dañu leen di jàppale à ce que ñoom ñuy liggéey xool nan nañuy euh, defee seen avenir pour mu gën a cool pour mu gën a nice sur ce gars yi am nañ ay artistes yoo xamante ni dinañ ñëw léegi léegi jouer parce que am nañ leen lu leen réserver lu graaw a graaw dina leen xaw a jaaxal nag mais dañu nekk ci li nga xamante ni moom mooy mbasu coronavirus bi nekk fi bientôt un an et ñoo ngi wax bépp sénégalais képp koo xamante ni yaa ngi yeewoo ci dëkk bi ñu respecté li nga xamante ni moom mooy mesure euh, yi di utiliser gel antiseptique di raxas suñu loxo yi ah ak ndox ak saabu ba mu set wecc di am li nga xamante ne moom mooy distance su un mètre yi gars yi sans plus tarder artiste bi may waaja woo moom doomu Thiès la moo ngi jógee fule ci Thiès moo ngi wuyoo ci tur bu naan Big Dat X moom nekkoon euh, benn group ak ki nga xamante ni moom mooy Taiji ji mën a bind mën a rap xam lu muy def xam nu mu koy defee sans plus tarder gars yi dama leen di wowal ki nga xamante ni moom mooy Big X from X, Big Dad X. def nu Allahu Akbar mais prato be maas yaa ngi xool yaa ngi gis wat say as dañ ko sa brain dafa war a fla fexe daj limité je pense donc je suis wute woog des cartes life baat rek couple fexe gis lu dul des cartes nega est-ce que mu ngi cool Jare everybody, Big Dadix, aka rap actor from Chess City. Represent Royal Nuggets, represent Chambre 9, di big up waa di wax gars yi que ni tekki fii mën na nekk. que muy outside wala waree ba fu mu mënti nekk il faut nga gëm sa bopp nga investiru xool structure yi nga xam ne ñu ngi fii pour soutenir sa business ñu jàpp si te LVIA ñu ngi def liggéey bu nice donc bombo clan dem ci ci let's go Matkila. ជិះមកណានោះអើយបំបក្លាក់នឹងជិះជិះមកជិះជិះមកណានោះនៅយ៉ានេះបំបក្លាក់នឹងជិះជិះមកអីចុះយោធាលសាឡាមីនតកស៊ីម៉ានអលវ៉ាខាដាអេយោធាលសាឡាមីនតកស៊ីម៉ានអលវ៉ាខាដាយ៉ាកដិរតិកហ្វីតណឺដមអាដាម៉ាអេចុះសាលវ៉ាខឌូបូន fa mu jóge maan ey comme la mën na doon bu maan yow kon moytul ñu lay tam dëmm ngay socco yellu liir ratata ci rek amoo ba melu biir toog hen taas yaa toog booy taskatu kër naafeq yaa bon eh yow mi bëgg a dëkke dul nag samaandu ma tagul kon noppalul mun a yàq sama der fuñ ma tagul ne wax ji bari na fi but yàgg na fi e su ma sa faan na ma yàlla soppi na fi e kon let me tell you this only God can judge me na fen te bàyyi dégg naa ni ratatata eh amana chat déema bàyyi luul sos te bàyyi dégg naa ratatati ratatati ni ab perroquet duul rek doo nettali te loo yëg mu siiw mais mbas mi waroon na fi jug quoi parce que instant bi gars ko doon jox nice xam mooy loolu quoi ñu dem ratatati ratatati ni ab perroquet tuul rek doone tali te loo yëg tekki fii mën na ne waaw waaw tekki fii mën na eh yow ku yëy yàqu bu ki yëy yàqu yëy kat yàq klaat redi fi ebe teg ne bul ma def ndax neel ma lën na ku ma ci li janti lëj bel bel dëkk jëw ngay jëw ku nekk ci dëj whatever the may be dem gonna hate but sa best friend sa first enemy la bu mu la bett ey Any ho ha, the mystic house boy. Dug the dynamos don't even the best boy. Come let me tell you this, only God can judge me now. By dul, by soste, by the gnani, ratatati, ratatati ni a perroquet. Yes, sir. Matilla, are you ready for the show? Are you ready to bomb a That's the big day cëpp na wusa yow ji koog borom pax baag rab ci kamb may ki lambo pur talent li ma samp duy xamb kuy xalam te ay ca jaadu na nga jaayu no li wër te wër mooy wër na leen ni li may def ni taaru na layta ina di dag moo fa yeblis lay yeg pon di mic me back to the good vibe of being in this game since bat ci bat ya betta eh, higher than me ever ma daan kokotif daan njëkk ci làmmiñ ak duñu tus fu làmb ji sàccee ñu rab ma rab all dem a rus I don't wanna be like hypocrite ci ci maana dem I know you know everybody know that level yi du benn recipe seen padre ci rab bi maa leen def di riim himi now bi may récolté yéen a ngi ci rendiri di maana wanna show them who the best are you ready for the ay mën na ne tekki fii mën na ne gaay Bumba Clan MTT man, bro. Respect Elvia. Respect everybody. Respect Matt For real. Bumba Clan MTT. That's what it is. Big Darix, aka Rob Actor from Chess City, Chambre Elbia, Tech if you Munane. Bumba Merci beaucoup. C'était Big Darix from Chess. Merci beaucoup, Matt yes merci beaucoup moo ngi nice from Thiès la woon big daal gi sa yi ñoo ngi leen di béggee bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen ngeen a ngi toog ci seen salon yi ci seen euh, bu liggéeyukaay di seetaan li nga xamante ni moom mooy concert u euh, ONG italienne euh, LVIA ñu def li nga xamante ni moom mooy projet créé ah financé par la coopération allemande GIZ mais ci biir projet bi dañu amoon ay jeunes yoo xamante ni dañ leen a formé ñaar indi nañ leen mu nekk ki nga xamante ni moom mooy monsieur Pape Seydi baar moom def aussi stage ci li nga xamante ni moom mooy euh, projet bi ñëwaat tamit suñu beneen jigéen muy euh, madame euh, Aram Far moom aussi moo ngi defoon stagiaire am fële ci fee si Touba ñoom ñëpp ñoom ñaar ñëpp ñu woo leen ñu ñëw fii ci scène bi pour ñu defal ñu benn témoignage ku ci nekk ñu may leen une minute ñu wax ci li nga xamante ni moom nañ def concernant seen expérience yes. c'est Pape Euh, je suis technicien en agroalimentaire. Euh, j'ai été chargé au sein du projet en tant que formateur dans une entreprise de la place. J'étais chargé de former l'entrepreneur dans les produits laitiers. Donc j'étais missionné de lui transmettre mes compétences telles que la transformation des produits laitiers, telles que le yaourt, du des fromages et aussi euh, du lait concentré. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre tout ce qui est euh, les PME euh, du Sénégal. Je serai tellement bref et je vais laisser à ma collègue de continuer. Aram Fall. oui asalaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. maa ngi tudd Aram Fall. je suis financière de formation mais j'ai été recrutée comme gestionnaire. par Elvia pour le projet créé. J'étais amenée à Touba dans une entreprise d'impression numérique. Euh, je suis là-bas pour apporter mon expertise et gagner d'expérience. Parce que eux, ils étaient à l'extérieur. Ils ont passé beaucoup d'années là-bas. Ils sont revenus au Sénégal pour investir. Donc, eux, ils, ils, ont compris très tôt. Donc, ñoom xam nañ ni toog fii tekk fii mën na nekk. donc ñun dañu dem jige leen aussi pour que ñu gagner pour mën a financer suñuy projet ici au Sénégal au lieu d'aller à l'extérieur merci. merci beaucoup Aram Fall merci beaucoup euh, Seyni. baar gars yi ñoo ngi leen di béggee bu baax a baax comme nañ ko waxee ñoom tamit ñoom ñaar ay bénéficiaire nañ ci li nga xamante ni moom mooy projet créé ba tey ah, dañuy woyee li nga xamante ni moom mooy concert bi damay indi beneen artiste rappeur moom moo ngi tudd euh, Jaman nekk membre express ñëpp dañ koy gis ci réseaux sociaux bi ah muy def ay son yu nice ay ay affaire yu yu am yu am punch yu am flow affaire bu grave voix or mu nekk le chouchou des jeunes filles gars yi sans plus tarder je vais ki nga xamante ni moom mooy Diamant Express. Diamant, yes, Matculus, si c'est bon. De nous, et surtout de sa jeunesse, il a que nous pouvons développer ce continent. Et nous avons tout pour réussir ici. Nous avons le soleil, nous avons la terre, encore une terre vierge qui est disponible. Nous avons ce soleil qui est généreux avec nous 12 mois sur 12. Nous avons de la pluie, nous avons surtout la matière grise. Nous avons la force des bras, puisque la majeure partie de la population sénégalaise est jeune, je crois que quand même avec un peu d'effort, nous pouvons nous sortir. Tout le monde ne peut pas réussir au bureau. Apprenons des notre terroir, développons-le et la réussite sera au rendez-vous. ki jot a jàll léegi moom mooy Jaman Express mais ñu rappel leen ba tey ne leen lii nga xamante ni moom mooy concert bi euh, waa ONG italienne ñoom ñoo ko def LVIA ñoom ñoo ko def mu di def dëmmal li nga xamante ni moom mooy projet créé financé par la coopération allemande GIZ ah gars yi sans plus tarder damay woowaat beneen artist rappeur moom doomu cees la moo ngi jógee fule ci Thiès moo ngi wuyoo ci tur bu naan Taïjichi moom tamit moo ngi nekkoon ci li nga xamante ni moom mooy euh, groupe Tegal 16 technique de hors pair Gangsta Flow mu nekk mu am benn écriture boo xamante ni c'est particulière nekk gaañ boo xamante ni bête de scène la mun la lu muy def xam na nu muy def te moo ngi koy def ba tey moo ngi koy demal gars yi bëgg nañ ko torop sénégalais yi bëgg nañ ko torop mélomane yi nga xamante ni dañuy déglu hip hop ñoom bëgg nañ ko torop gars yi damay woo ki nga xamante ni moom mooy Taïjichi Mathieu la c'est est-ce que c'est bon jox ñu ko mu ñëw yes. yeah. oh. may ma son. oh. oh oh oh oh oh. won won won won won lool reetaan mëdëri muuñ ëllël ha ha ha tëwal ba ci kaw tëwal ba ci kaw sa caay naaw ah kaw teewal ba ci kaw sa child now now uh, now now maa ni nga baal ma koon samay daaj yaa ma gën a noobu baax li may laaj fii doomu iri sama business taaj bii samay ennemis ak seen fight taluma li jënti kuy jëm a xeex bakkan ci job bi rek am baate hey oli mooy capitaine ak bi libéré succès bi embarqué eh? hey gën a xeet di faire le semblant ma lay gën a fokk di signe dent blanche atlétique sa mind faj la ci seconde yegg sa kaw ne Tarzan style bi ne mel jafe ne mercure parce que yàlla ci peinture ci siri fu ne lañ koy seetlu pare tukkal ak tuna attaché vos ceintures hey kay faju ci oli bonama e bravo sa mind fo biddu ne concert maam góor oh jazakum law fis mi ngi fa law bro ci pet ñu ngi teg suñu business comme ay narco Mr Mar Kilo what's up ñu may gaay lasuwaan bi bu fekkee am na ñu bëgg a yëngu tamit ci ginnaaw ñu yëngu tamit ah waaw dinaa ci kontaan aha yeah Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Two, one, two, one, two, three, girls. Taji, Shinua, Taji, Shinua, Taji, Shinua. I'm a motherfucking king. Taji, Shinua, Taji, Shinua, Taji, Shinua, Shinua, Shinua. I'm a motherfucking king. Dig 'em, dig 'em, dig 'em, dig 'em, dig 'em. I'm a motherfucking motherfucking king. Take him, take him, take him, take him, take him. I'm a motherfucking king. Take him, take him, take him, take him, take him. I'm a motherfucking king. Hey, you know. nigga bu ma jege dama blende siiru la ma ceene division commandant Abdou Barham la deretu nu commande dama yeme yaga simi lene simu gene ma nigga tojo la barka an goru yàlla tigi a ñama himma ne talibe haka no wadi jaan fede sana ñëwul yëngu ha menu chanta dañu pare daal xateri gëna ti too fa eva di bamba sa veri nga jël ci bari neme la tital ba du tala sital gëna bani ci la tigal tabe kila technique dokoto ma too tomalu tala sila xurba rapport kan la ba eke e talibe ba ko sa tabe ya doxol la zeyru nga tell every kind. Morning, good morning, good time, all the taxi man, but forget take it appear. I can send you put this. Are you not a book on the river with musical peace? Still, we records are far the line, but they goes all the way. Lion, black, about the vision, the down the records and the gaga fat. Higher, Nile, Mark, Zion, took a little behind, took a chip, Robert, the 24 7, but you're on the okay. Tired of a night. Do that. I like you, Todd, shit. Shit. They might fetch you, they'll be right there. alaaji taaji si déwul vingt-et-un bu mënul feccee nii rek garaaw alaaji taaji si ci kanam lañ jëm ah alaaji taaji si dije mat kila dije dije mat kila dije mat kila dije dije alaaji taaji you know what, you know what, you know what? I'm a motherfucking king. Tie you, you know what? Tie you, you know what? Tie you, you know what, you know what, you know what? I'm a motherfucking king. Tout le monde, tout, tout le monde, tout le monde, tout, tout le monde. Ah, ah. I'm a motherfucking, I'm a motherfucking king. Hey. Néew naa la ko ay bomb di romb du fale pétard. Maanaam ñoom niveau bi yàgg fa too noo am na écart. vision hakkani profit raasi jëla bi taaw la soxla wu tere da taa defu ba lu moom wala maa ni nga jëla elan soppi ngeen mi sama koloni baabu mi nagu ci golo yi dégg ci terrorise seeni mbooloo mi foo dégg peew peew di bu boolo ñibbi parce que yàlla la nga di taal génn si picc nga doore si dio si ngeen mi si ñoo génn si charatu assiru maa ngi assuré et jëleen ba ak sumay doobu raay maa ngi faj fuyu di suufu ñalan di ma suufu sàpp fu ñu ni Mguu to the bar, hele to your guy Nataka ngafaro fengunu nga Wachore kabari me bude nyika Sema nyika kwa kama na buru ka Maniga bai kwa khel Taji shinwala aka boy a city Why did tell me promise my minya Rati sa anke se jaru nyo maniga bao nyo surba Yaga na table nyo mbe na revolution Sen keme ni Muhammad Tyson Pull fire All I just, I just alaji alaji alaji Tadio Sène. non fii jarul baako baa ma def nii rek. alaji Tadio Sène. baa ma def nii rek yow. ci alaji alaji alaji Tadio Sène. di la. hee. hee. hee. one two one two three go. Taji, Shinua, Taji, Shinua, Taji, Shinua, Shinua, Shinua. I'm a motherfucking king. Taji, Shinua, Taji, Shinua, Taji, Shinua, Shinua, Shinua. I'm a motherfucking king. Two more, two, two more, two more, two, two more, two more, two, two more. Hey, big up, big up, big up, big up, big up, big up, big up, my main. DJ Mad Killer. big up à LVA, big up à Africulture Urban, uh, big up à la 2 TV, c'était Taiji Scene. Blaze off yàlla na fi corona gaaw jóge nag artistes yi nekkaat ci jàmm jàmm yàlla yëpp nekkaat ci jàmm big up. yes yéega c'était euh, Taigi Chi from euh, Thiès ñoo ngi leen di béggee bu baax a baax ba tey ñu rappelé leen parce que rappelé euh, di fàttali que ñi nga xamante ni ñoo ngi ñuy seetaan parce que am na ñoo xamante ni artiste bu njëkk a yéeg da leen raw ñoom dañuy ñëw di soog a dabe si li nga xamante ni moom mooy concert bi ah tonton Moussa noonu la ah? ba tey ñu wax leen ni leen ñoo ngi en direct ci li nga xamante ni moom mooy la télévision 2STV hmm. di leen présenter li nga xamante ni moom mooy euh, hmm. euh, projet bi nga xamante ni waa ONG italienne ñoo ko def muy LVIA basé à ñoom ñoo def li nga xamante ni moom mooy projet hmm. créé financé par la coopération allemande GIZ ah, ñoom li leen tax a jóg mooy dimbali euh, suñu mbokk sénégalais yi nga xamante ni ñoo ngi nekkoon fule ci Europe ñibbisi fii ci seen dëkk fas yéene fee liggéey bàyyiwuñu leen benn yoon ñu dem côté mais dañ leen di orienté à ce que ñu xool nan la ñuy defee seen avenir nan la ñuy liggéeyee ba affaire yi gën a nice gën a gën a cool ah mat ki la sans plus tarder dañuy dem feneen ah damay indi jigéen suñu jigéen la ñuy indi moom ñëpp xam nañ ko kenn du dootu ko présenté ci li nga xamante ni moom mooy seenu hip hop Galsen mun a rap am technique ah am flow am style bu graaw kooku du kenn ku naan Mamy Victory Mamy Victory ma killa ah lii borom faykatu dépense yeeg ndox ak yooyu noonu ñoo am na ku ubbi am ku fëgg juróom-ñeenti weeru mbapat CNG validé sama naissance géwél yëpp di ma tagg ñaanu waajur di ma tàggat cumbukaay la ci ndigg ma takk war naa mën a dugg géew ba rek soxla àdduna mër mi daan ñëpp ndaw ci diggu dooleem war a mën a faj ay problème tekki metti saf ni kaani kenn mënu ko soppi lem arbitre ne pirim ñuy lewatoo sama supporter yi ñoom di safal sama diggu doole laa toll dóor kuur pañ caxabal mu rasu sol ma bëgg-bëgg mëte ko ci nengeñ bi reporter yi ne ku farak moom noonu ne daanoo ngi xeeñ waa mbot ma faxat dema ne ma ku yot du ci saa ma siggi jàkkaar la moom jàkk mu mel ni ku sekki ma daw wuti saaku yi ah kuy fëgg kuy fëgg kiy fëggati ku mu doon kuy fëgg dépense ñëw fëgg ndox ak fëgg façon soxla bu ne ku ne taxaw samp ndënd kuy fëgg kuy fëgg kiy fëgg ci ku mu doon kuy fëgg scolarité fëgg feebar faju fëgg façon soxla bu ne ku taxaw samp nënd ah ufu sama cumbukaayu lamb ji bëgg duma ci dara arbit bi woote waat na sama doole jeex jom rek des li ma sëriñ yëpp diggoon est naa ko gis stade bi ñëpp ne tekk ma xam ne tey la sama bis. salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum man la Mamy Victory so ñu ngi rafetlu initiative bi euh, vraiment ça fait toujours euh, un plaisir de sensibiliser te di wax gars yi ne tekki fii mën na nekk soxlatul ñuy dem fenn pour am dara parce que suñu réew am na lépp ku jàpp rek te woo gëm li nga gëm rek di nga àgg fa nga bëgg jaajëf. It's your girl, Mommy V, yeah? Trap, trap. Uh, yeah. Bandi bi dee te film baa ngi doog a tàmbale newoo Japon te damay rap suuf si di tàmbale ëpp ma fan say ëpp ma ki député assemblée weesu mën rap léegi damay jàngale doo ma fàtte mel ni hospice biñ la jongale da ngeen di léeb gëmatuma seeni compte de fait ci soo di jongale fépp laa mën ne ni Steph Curry ci bal sa king ni ma koy bondalee wax ci dafa bëri lool jëf ci néew du ma lébu takkal nañ ma ndombal tànk ndey ci réew yaa ngi xam ba di ëpp te dara tàkkatul son yi may jam dafay dugg doo ko tàkkatul takku ma moot li may rap di tegu ci temps sa concert duñ ko rooni ambassade Afghanistan mag du der Jaraaf ak AC Milan xoolal sama neem j'ai gagné avant la mi-temps no way out du ma bàyyi mu sedd li na ci waañ bi gis na lool yéen ñëpp mën ngeen ko sedd nigga foo seen daaw give ma lot of respect more than a woman dama tren ci rakote ne ah bi xas na décollé kenn mën na dul ci dus bége ñi ma yàgg yéene ndaare buntu kus xamee ñi loof ndax ñoo bokk mbus maa ngi ñaanal mer ak ndax ñoo ma yàgg a puus tey turu mami ci game bi ak a indale biir ma seeg di xaar ni élève ak mi di maa ngi ci jàmm fii lépp a ngi chill changé naa la belle ma changé style góor du ni man góor a ngi rêve ni man mënuñu mel ni man dama kawe ni roppalaan mënoo ma may ger non parce que maa la tiim lii la yàlla def daf la metti waxal yàlla tiif def la metti waxal yàlla tif sama mera yàgg ba léegi mënu ma gis cuune dem ba dagaan lu ma gis lu dul maa fi dàq doo ko dégg seen ndis presse bi jaay la fen ma bind dëgg di la ko may kon su may gën ci rap bi tey talambee ma ko may pour ñi ma bëgg joob sama tuur c'est Mami Faye xar fa xuur fa mënul ci man tuul doo defee tey lan ngay seet skills ak sito ma dalal band yu ndaw a ndaw yi fi nekk di soob fii son yu baax yi daf fi raar mel ni rappeur bu toog yenn saay ma déglu ne non hip hop a njaboot yaa ngi seeraas fii kenn du fi jooy ko boo nga dégg dégg koja sama album ba sikki sàkk ba xam dina jaaru wala mel na ni nga toog di laajte est-ce que mbaa ca góor mus na ko fóol petit modèle andil bonkal ma fitnaal ko liiru caan andil dangar ma am fitnaan ko man dama ñeme liggéey ne foor katub njaago doo ma taab doo ma joob deep let's go mami Victor wi def ndam li sund mu sa tontu mooy lu dul rap gaal seen bugguñu ndaw ak ñàkk fayda noo nigal loolu du ñun superstar te jom producteur du ko ñëw show bi yéeg a ko wàcc ni si yéen a ko laaj show bi xëcc góor ñi wellness ni cege fa rap lay bi lay tere rap ndax dañ ko ferale rap ni kalif cubb adam max dominique pere rap one shot one kill your bald head black skin ngay feel I'm hard yeah I'm real big kills bring me down Pills benn rappeur laa yéene sama bopp tubaab ghetto nigga moom mooy takk dugg di tubaab yaramu jigéen bëggu bëggu góor nigga irigel yëpp tëj futti sa di kon samay gafe tubaab talibe ma duma kaadi non duma rembi ma nday benn fay la woowee ma mami ma moo nga nga kaline ma nigga I'm more than a woman hey I'm more than a I'm more than a woman bul ma xoolee ba tu show cause I'm more than a woman ji I'm more than a woman I'm more than a woman I'm more than a woman bul ma xoolee ba tu show cause I'm more than a woman hey I'm more than a woman yeah I'm more than a woman I'm more than a woman bul ma xoolee ba tu show cause I'm more than a woman ji I'm more than a woman than a woman. I'm more than a woman. Who will hold it but the show? Cause I'm more than a woman. jaa ngeen jëf merci à tout le monde. <laughs> yes. Mami Victory. tàngal nga saal bi de. so much. jaajëf waay. aara ngi ñëw. ah. waaw. ah. gis yi yi yi yi matki la daa mel ni mami Victory daf la tàngal de ah yes matki la yes aha merci beaucoup gars yi dañuy la <laughs> yaa ngi koy scratch de yes gars yi c'était Mami Victory from Kapsi sans plus tarder damay woowaat beneen artiste rappeur moom heure bu génnee son day def bruit ah mun rap nekk membre Jahmerue kooku du kenn ku naan Karbala Keze Karbala DJ mat la si c'est bon Yeah, yeah. Hi. Uh-huh, uh-huh, uh-huh, uh. Yeah, yeah, boss caagal lañ jàppee rabkat mooy fidèle si moom tey ñi naan dañ ko weesu yëpp moo leen def lu doon comme man rek maay élève sabaay ma laaj lu mu doon noo def fi booy dëng bu mag di doxee lu suy suñu yoon kaaka bi nee xelam du doy daawut ku matadi kembe def ay wàccu bees ñuy waxee connerie tuutu nañ bañ defee son yu bësante normal ñu rap mu safay day seen yi mais bëse géey si yee formé la fay si ndaxu fis dangaa bëggoon samay alantu pam abi defal vidéo gaal seen jàppee ko fën jaay digitat naan uti ko mende ko duñ ko mën exactement sa xol la ñuul même boo dee teint bi rek ngay xaar ci suuf mais ne ko kàddu ndeen clair diwaan bi maa fi ne def leen ay mburoog lem ni lëës teg maa fi kenn du tabax tous même buñ dee axlu brique teg ma doon siis du jaamu dongo nañ ko def ci cër sa teewal mbedd duñ ko gaaw a gëm mel ni je t'aime but wax ma xam nga yàlla du mythologie grecque bokkuñ ay yoon nañ def rek comme gi yombul dese nga waat liggéey bu gem bi doon sa nguur lyrical maay da number one yow wax ma kañ ngay doon sa tuur ki deewoon koor bi ñëpp rob nañ ba defay ñaan ndax maa ngi ak seen secret d'état ni Thierno Alassane bu génnee instinct animal maay raw sax animal vorace vampire sometime maay gën a doon sax aada cannibal ba doonee affaire de vie la MC ñàkk vision nee bu safee sombalax day dem mooy prostitution coowal million nga gis bu jege léegi seen taasu cool yaa dàqoon kaas état bu fii tey dem nga ba siiw naan musique laay def xool ko ci kaalu di rap moo leen fay premier cachet sûrement sa premier gel sûrement sa premier daano quelque niggas bu la gëm boo misee lépp sa physique duñ la nawloo ci xel da togg say bêtises noo def nga gis ay quelques fan yu xëm sauvé hip hop ni yonent beeg ba ni xurey chiin mooy dictature di yomb fii nañ dem ba correct chiin ker laa doo gis ñu mën a suul dogal 17 ans waxuma kaana bu gaana naan damay gësam fii Nigata était pris de haut sans même quitter le bas di rêver doon le meilleur buteur sans même quitter le le presse waaye teg yi gën a salte commentaire yu tub émoticône yaa ngi changé fees comme aw gis wu jëm seen son yi xeeñul neex même teeree deeku ko risqué du tëb ndax maa fi def luñ mësul def li maam borom Tuuba di wax lu kenn wax si réew mi ni troisième mandat rapport yi dàq góor mi di sax ñoom du doog aba bu laaj lu tax public hip yëpp ba du loog fan bawoo ci mbedd bokku mag dafay concession ba seen parcours di gën a làkku secret confession sa MC indee jox ñu réeli pop mais pas ay son fekku rek ñu koy mën di tiktok ne traître yaa ngi gën la dëm si suuf lamp ngor teg ko si temps wàccal say mesure ndax fajar léegi mu jot këse yii Hey, eh, what's up, la famille, c'est Karbala, aka The Ghost from the Dar, from Jah Allah, represent Khariala Grand Yoff. On salue l'initiative de LVA Sénégal, qui est une excellente initiative qu'on a participer une première fois. C est, c est, cette année, c'est la deuxième fois. Donc c'est un plaisir d'être ici parmi vous et vous faire plaisir. Bang. One love, one love. Respect. yes gars yi ñoo ngi leen di béggee bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni ba tey yéen a ngi toog à travers la 2STV di suivre li nga xamante ni moom mooy concert bi damay ñëw suñu beneen DJ ñoo ngi am ki nga xamante ni moom mooy DJ Las from Thiès ñu woo suñu beneen artiste ñu xaw a changé li nga xamante ni moom mooy couleuru concert bi kooku du kenn ku ñu naan Krasik from Thiès Krasik accompagné par son DJ DJ Las yes <laughs> pull up pull up pull up pull up pull up pull up directeur si sa aja xamal ni mën na ne mën na ne mën na ne soo ko gëmee xamal ni mën na ne togal door waar fii ci sa saayit gëm ko xam ni mën na ne Manane, manane, na manane. Blaise. yee gars yi nañu doori waar nañu doori waar de affaire bi warul yomb gëm ko booy takkal sa fit jógal ne ci waar waar waar every day del waar bul ma sa tàyyi gëmmal te lu baax day yombul gëneel rambul jàmbaar gi sax mooy dëkk de ne ci waar waar waar every day del waar bul ma sa tàyyi gëmmal te lu baax day yombul gënal rambul jàmbaar gi sax moom dëgg ne ci waa waaroo bëgg falu jooboo bëgg noppalu waaroo bëgg noppalu caaxaan werul caaxaan jigéen ju weerul wóorul waaroo bëgg falu jooboo bëgg noppalu ngembul ca teel yow jaayante tuus bul nangu yow ku la leel ndax mbër mi dunia su la daanee di nga rus yow gàcce ñu wis la tepp yu gën yuréet pëng door ca xabal mboor bu mu taxa fa gëdën mën a mi la bàkke fëddën du fàqee gëm ko booy dakalal sit ma ne dil bi mooy xam li laa jig ma ne gëm ko booy dakal sa fit ndaxte dil bi mooy nanam li dig yee waar waar every day del waar bul ma së tay gëmma teebul bàyyi baax day yomb gëneel rombul jàmbaar ji sax ma dëgg de ne ci waar waaroo bëgg falu jooboo bëgg noppalu waaroo bëgg falu jooboo bëgg noppalu jaaxaan wérul jaaxaan jigéen di ñu wax ak politiciens yu reew yi bëgg a foye suñu réew mi senegal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar sagante ndey ak wax ju ñaaw amu fi place acca moo layta moo layta moo layta tal leen briquet yi dama ni réew jàmm koy doxal dama ni réew ku koy doxal dama ni réew kàcc ak du ko doxal ni réew ni jàmm koy doxal dama ni réew ku réew du ko doxal damal ni réew ni ngoor a koy doxal dama ni réew kàcc ak sàcc du ko doxal ni xoolal ni ñu jiite ngi daqarante nay ni xoolal ni ñu jiite ngi saagante ndey ni xoolal ni ñu jiite de tàmbaliwul tey gàtt ak ñàpp la ni xoromante jot na nu jóg ñun jóg jóg taxaw war na ci jóg ñun jóg jóg taxaw balaa mu fii ëppe loxo waay te waru fee ëppe loxo waay jàmm koy doxal dama ni réew ku du ko doxal dama ni réew ni ngoro koy doxal dama ni réew kàcceeg sañ du ko doxal ni réew jàmm koy doxal dama ni réew ku du ko doxal dama ni réew ni ngoro koy doxal dama ni réew kàcceeg sañ allu ne fang xam nga ni mos jar ta jeex sunu alal ngeen di noose ku ci rekk geex ñu lu koy ëpp tax nekk di tëb di dal justice bi jeng nar na jur ya fitna dal si c'est de l'eau le virus est dedans yéen a ko naan man ni Macky moo leen ragal police de la yaa xam ak say dix mille problème Farba ca mamel bu leen juróon yërëm leen skandal after skandal ate papalam ate la xoma ci leen xaabe jooy ndeng leer di jooy dama ni réew jàmm kay doxal dama ni réew ku réew dama ni réew ngoro kay doxal dama ni réew kàccak sañ du dama ni réew doxal na ma ni doxal ku réew du ko doxal ni ngoor a koy doxal kàcc du ko doxal Blaise merci beaucoup Elveya merci beaucoup Afrique culture urbaine merci beaucoup artistes yi fi jaar yëpp merci beaucoup projet créé one love Blaise and love ja ramasser Fall Blaise waaw damay dugg régie léegi ñu dugal benn élément après ñu ñëwaata ah. man comme kii may yëngu mooy euh, commerce ak transport ak maraîchage te laa njëkkoon di yëngu ba jóg fi dem dafi immigré état yi mais ba ma demee état yi ma xool ya ma doon jànkuwanteel li ma doon daj bu ma ñëwaatee Sénégal ma fi dajee ak ku ma jàppale la la may gagné fële dina wax gagné fii. monsieur Maguette Diop on dirait qu'il qu'il un grand une grande palette technique donc euh, on essaie juste d'apporter un peu notre soutien parce que lui déjà il pratiquait ce qu'on appelle l'agroforesterie sans le savoir.

kat ñoom da ngay toog fii wut sa deux hectares liggéey bi doo amee forage toog boo toogee deux ans que nekkoon fële cinq ans da am lu ko yow da gañoon loo xam ne kële ko gañ. jeez. téyel ma magi téyel ma magi téyel ma magi DJ Mathieu la yes moom tamit xale bu mun rab la yes comme ñu wax leen ba tey ñu leen ñoo ngi nii ba tey en direct sur la 2STV ci li nga xamante ni moom mooy concert bu neex a neex a neex ñu àndoon ci ak ay artistes rappeurs waaye ba tey dañ koy wéyal ah yéen ñi nga xamante ni yéen a toog di ñu seetaan ci réseaux sociaux yi mu YouTube Instagram ak Facebook ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a di leen bëggee waaye ba tey toog di xaar ah, parce que ki may waaj a artiste la artiste bu mun lu muy def artiste bu xam lu muy def artiste boo xamante nii kenn du ko euh, waxati parce que même jigéen ñi sax ci réseaux sociaux yi dañuy utiliser li nga xamante ni moom ay som di ko def ay challenge ah <laughs> Matt Killer lu mu demee gars yi ki ma leen di waaj a indil c'est un intellectuel très bon pour être un écrivain un artiste muy chanteur rappeur di écrivain ak les points il a or il a sorti Diagnostic en 2015 l'homme au fameux hit Mburoglem et Early in the Morning gars yi kooku mooy Leuz Diwane G Leuz Diwane G gis si c'est bon acca acca acca acca c'est ça acca kon merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup à DJ Killa merci beaucoup à LVIA donc voilà comme comme comme d'habitude ah mën na nekk fii mooy message bi mën na nekk fii et c'est possible encore une fois c'est possible benn asamaan moo tiim dëkk yépp donc asamaan si dafa bleu fépp donc pour man war na mën a nekk fépp mais donc li gars yi di wax rek bay sa wewu tànk na ci gars yi nekk plus de courage plus d'espoir li gars yi di wax man gëwuma am le rêve américain mais l'espoir africain et c'est possible donc mën na nekk fii encore une fois aca one love mënul bañ a yaatu mbër génn ci mbedd bi jël maag waxal di ñu ndax mënu mu woon nekk suñu baatu kër suñu son bi laa taamu c'était Leuz Diwane ji gars yi ñu ngi leen di béggee bu baax a baax euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a toog en direct sur la 2 di ñu seet di ñu seetaan li nga xamante ni moom mooy concert du projet créé organisé par l'ONG italienne LVIA ñu ñu ki ko financé moom mooy la coopération allemande GIZ mat ki la <laughs> yow moom ku la gis ci ginnaaw dañuy xam ki nga xamante ni moom nañu war a indi <laughs> topp nga ko fu nekk accompagner nga ko fu nekk mu def affaire bu grave ah. mu nekk li nga xam mu nekk euh, membre euh, BMG 44 mu muy def liggéey bu euh, bu bu bu jéggi dayoo lu liggéey boo xamante ni nice na rafet na kooku du kenn ku naan président association Africulture Ban di liggéey ci li nga xamante ni moom mooy wàllum événementiel di formation euh, di ay concert truc du genre et cetera et cetera euh, muy nekk tons boo xamante ni mu am ouverture trop képp ku bëgg conseil boo demee ci moom dina la xaaral danaan la kaay nga toog mu waxtaan ak yow wax la ne la yoon bi ngay jaar mu nekk euh, suñu grand mu nekk suñu tonton bu kenn ku naan Matador mat kilo si c'est bon ñu yéegal ki nga xamante ni moom mooy Matador yes. hey salaamaaleykum Sénégal afro descendant ata ci ci jamonoy African Bambata tey ñibbi si war na Africa imposé bi def dégâts yaa ngi ci ngandi maami atanta suuf yëngal tout tremblement de terre di taxaw di trembler de trembler change orbite dem si beneen sphère beneen terre beneen atmosphère sa mbokk du bëj gàllu dof du terre karanka pied laa la suul su terre yaa ngi miir di wàccu yaa ngi neer doo bandi doo sanguinaire déclaré galère te demoo guerre déclaré fils te amul mère déclaré œuvre te yoroo xeer tey ma tàngal logo marqué laak fer Zulu Zulu Zulu nation Zulu Zulu Hip Hop Nation Hip Hop Nation am na dëkkandoo am na ñu am àndandoo faru rab gellu ji ne tax na sëyegoo oh. tuura xamb yi nga kamp bañ ko toppatoo topp la ngay daanu di say ñoo lay ndëppaloo rabatee say tànk ñoo lay ndëppaloo diggu njoloro la ji ne pes waxatoo oh. cal mbeer wër la timis moo la jommiloo oh. saa yu suuf si demee ba seet léppay jógandoo rawaan yi naaw noo xóori rëbbi deret la soxla li la ñu wuti deret la soxla jël sa ruu yéegal ci kaw guddi am na borom bàyyi cook. Nanka ninki. Ninki nanka. Ninki ninki nanka. Nanka ninki nanka. Ninki nanka. Ninki nanka. Ninki nanka. Ninki ninki nanka. Nanka ninki nanka. Ninki nanka. Tout le monde. Ninki nanka. Ninki ninki nanka. Nanka ninki nanka. Ninki nanka. Niki Nanka. Niki Nanka. Nanka Niki Nanka. yes pouvoir mystique bul ko négliger town boo dem am na esprit yu lay protéger kumba kasal la daawul garka mboose yuuxu dox ci fii di faamboon di laaj ko soose fasu benn tànk nitu tànk fas yaramu jaan kennu jën bopp gaynde safara wër la xaaju guddi ginaar ak cuuja kuus kondron teg këllam ni la kaay foo jë nekkatul ci guy gu réegi léegi mi ngi ci dex gi or ak jamaa maa lay lekk safara lay buusu amoo xam-xam dëgg doo gis ba koy gestu Daouda Sané ku la bunte ninki nanka nanka ninki nanka ninki nanka nanka ninki nanka nanka ninki nanka ninkinanka ninkinanka danka ninkinanka yes ninkinanka ninkinanka nanka ninkinanka sike menche like menche sike menche sike like ninkinanka yeah ninkinanka ninkinanka nanka ninki nanka ninki nanka nanka ninki nanka ninki nanka nanka nanka nanka nanka nanka léegi nag ñi nekk seen kër di seetaan tey 2STV soirée bu neex bi parce que gëj nañu gis concert live ak kii ak ndaanaan yi fi jaar yëpp vraiment ñu ngi leen di jëfal voilà di leen wax ni mbas mi metti na mais ñu jéem a respecter liñ ñu wax parce que li ñuy dégg ci ay décès bëri na trop vraiment beneen message bi mooy aussi ñiy jël gaal yi wala jaar ci désert bi. ni dañuy dem kaaw ba kaaw ba moom instant bi sax jolof tan parce que lépp tëj ku fa dem xam loo fay def <laughs> waaw <laughs> loolu moom dootul solution léegi nag nañu xool nu ñu jéem a traye fii si biir town bi pour jënd si léegi système bi aussi ñu jëm ko yombalal jeunes yi ku ci nekk nag si gàlleem ak li nga nekk nga nekk mécanicien menuisier médecin avocat wala loo nekk da nga cee war a nekk capot voilà ñun nag ci musiciens am na ay capos ñu fi jaar ñëpp ay capos lañ tey waaw donc maa ngi leen shout out. one two one two from si kaw. Creators TV go. bu mais merci à ñi di seetaan 2STV yëpp et on remercie vraiment les organisateurs ak ñi jàll ci scène bi yëpp ak ñi di seetaan show bi encore une fois merci. yes gars yi c'était euh, Matador gars yi ñu ngi leen di béggee bu baax yéen ñi nga xamante ni yéen a toogoon 2STV euh, di seetaan li nga xamante ni moom mooy show bi comme ni ñu ko waxee sànq ñi nga xamante ni moom mooy ONG italienne LVIA ñoom ñoo teg li nga xamante ni moom mooy seen projet créé financé par la coopération allemande GIZ ñoo ngi leen di béggee bu baax yi ñi nga xamante ni techniciens yi photo photographe yi caméraman yi staff bi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw doon ci liggéey waaye duñu du ñu fàtte li nga xamante ni moom mooy waa association Africulture Ban ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak waa ONG italienne ànd ak ñoom ci liggéey bi jëmmal li nga xamante ni moom mooy show bi waaye duñu def lu dul remercier artistes yi nga xamante nii ñoom ñoo fi jàll ñoom ñoo ngi leen di béggee bu baax a baax di béggee suñu DJ Matt Killa di fi di béggee ñëpp di leen wax ni gars yi kontaan nañ trop ah, kontaan nañ woon trop euh, teewee ak yéen taxawoon fii di leen présenter li nga xamante ni moom mooy show bi di leen wax ba beneen yoon incha allah jaajëfatee